merci beaucoup effectivement dama ci sawar wax bu baax a baax parce que tey dafa nekk actualité mm. te ñun ay syndicat la ñu yor te dañuy bëgg wax ci actualité bu problème amee dañu war a ñëw wax ak liggéeykat Dakar di ki wax ak population Dakar bi mais wax ak sénégalais yépp ñu xam la problème lan la mm-hmm. effectivement coow li am na mais nekkul loo xam ne peut-être nit ñaa ngi koy soog a yëg mais ñun nga xam ne ñoo ŋànk syndicat Ndefleng liggéeykat yi xam nañ ne bu ñu taxawal berte bi depuis trois ans xam nañ ne bu BRT bi ñëw dañuy supprimer ay lignes. xamoon ngeen ko xamoon nañ ko ba information bi jàll na ñëpp xamoon nañ ne berte bu ñëwee commencé daw. Mhm. li ñu bari au niveau de Dakar dikk dañ koy supprimer te mooy lu am léegi nag BRT dafa décidé supprimer six lignes la décidé supprimer comme ni nga ko waxee mooy yoo xam ne ñu bokk ak trajet ak berte bi. ñoo bokk yoon ce moo mhm. décidé ne day supprimer six lignes la. Mhm. si six lignes yooyu am na yenn quatre yoo xam ne da koy modifier maanaam dix lignes lañu la ñu ciblé dix fukki ligne moom la ñu ciblé six la ñuy supprimer yenn quatre dañu koy modifier maanaam ñu jaar faw xam ne nii duñu bokk berte bi yoon ok mooy information bi léegi aussi bu ñu ko jotee ñun dem nañu gëstu ji ko xool yan njeexital la mën a am si Dakar Dem Dikk parce que aussi boo yoree syndicat bu coow amee mhm. état jël ay décision parce que c'est moom mooy organ bi nga xam ne moom moo ŋànk mbiru transport fii si si Dakar. Dakar moo koy réguler di ko saytu. Mhm. di àtte loolu mooy liggéeyam. léegi information bu ñëwee donte defoon na si recherche yu bëree bari gën nañ gën a demaat parce que comme nag bett commencé ndaw dem nañ nag CETUD dem naa CETUD dem naa direction générale bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor mbir moomu projet bi. Mhm. ñu waxtaan ak ñoom xool document yi xool ba ban njeexital la mën a am tey jii si Dakar uniquement impact bi. Mhm. parce que ñun lu ñu amal njëriñ tey mooy. syndicat boo koy def ñaari mbir moo lay yitteel benn bi mooy di taxawal liggéeykat yi seen revendication benn bi aussi mooy fexe ba entreprise bi. Mhm. sax dàkk mooy maanaam pérennité de l'entreprise lañ koy tuddee. mbir bi donc bu mu amee te ñëpp xam nañu Dakar Dem Dikk tey ay lignes lay ŋànk Dakar Dem Dikk ay lignes lay dawal loolu mooy loolu mooy Dakar Dem Dikk. Mhm. transport lañuy def ay lignes. léegi bu ñu dañuy supprimer lignes yooyu ñu dem ñu gëstu loolu noonu bu ñu ko gëstoo gis ne lignes yuy supprimer d'abord lignes yi am déficit te li déficitaire au niveau de Dakar Dem li ñuy supprimer yooyu yëpp. maanaam bariwul. déficit mooy maanaam dañuy dule ab perte. ok loolu mooy déficit. ok bu ñu ko xoolee. loolu mooy un deuxièmement aussi bu ñu supprimer lii yooyu tey dañuy créer leneen li ñuy tuddee ay rabattement mooy maanaam tey Dem Dikk ci marché bi. Mhm. maanaam ñun ak AFTU dañu bool lu ñu tuddee ay rabattement mu toll ci 32. ligne lay nekk rabattement dama koy expliquer. Mhm. xam nga BRT bi benn ligne la boo xoolee BRT bi benn ligne la di jóge waay dem Dakar parfois yow tey mën nga jël BRT bëgg ñëw Wakaam. Mhm. bëgg ñëw Wakaam léegi boo ñëwee par exemple ba station bu Liberté 5 par exemple wala Liberté 6 je exemple mun nga wàcc foofu mais boo wàcc fa day am benn bisu Dakar bi bu fay taxaw jël la yóbbu la Wakaam loolu la tuddee mooy ligne de rabattement yi mooy maanaam BRT fu mu mënta egg. li ñu dem dikki dinañ fa eggal loolu is fa bokk tey si contrat bi. Mm. bu ñu signé tey ak CETUD. moo tax coow li bari na mais bu ñu ko analyser mm-hmm. dem dikk mënu si gaañu. lenn rek lañuy ñuy artu nag CETUD fenn la problème ñaar la mën a nekk tey ñaar moo tax may jóg di wax te dinañ si gën a waxaat di waxaat mooy xam nga dañu ne dañuy foog ne bu ñu supprimer lii ñu tey CETUD mun na wàññi suñuy compensation financière yi xam nga tey dem dikk. dafa am lu ñu tuddee un cahier de charge bu mu signé ak CETUD. cahier de charge bi dafa ne yow dañ may exploiter lignes yii mu perte mu ñàkk perte mu am xaalis mu ñàkk am xaalis dañuy bàyyi ba année bi jeex ñu calculer li ngeen perte yëpp ñu rembourser leen ko. Okay. parce que service public la ñuy def. Mhm. te ñëpp xam nañu service public booy def bu la état jàppalewul da ngay suuf parce que service public doo ut bénéfice lu si ëpp. c'est pas le principe du ut bi bénéfice ngay loolu moo tax aussi. bu ñu xoolee mbir mi tey ñu ne fu ñuy ragal ñun mooy mbir compensation yi. foofu ngeen di ragal. voilà foofu la ñuy artu surtout nag muy mbir compensation yi parce que ji compensation ba nga xamante tey état da ko muy jël léegi dañ ko forfaitiser rek léegi état pratiquement dañu koy dañu koy boole suñu salaire maanaam état moo ñuy jàppale ñu fay salaire yi ci compas compensation parce que compensation yi tey genre couteau à double tranchant la mun na bari ko mun na néew mais léegi dañ mujj rek état léegi day ne léegi man bu weer dee je vous donne temps mhm. pour ngeen fay seeni salaire Mhm. n'est-ce pas ñun nag foofu la ñuy wax statut bu mu laal compensation di ko wàññi kooku moom bu ko defee te ba fii tey information jot mooy ñoom jël jëluñu décision pour wàññi compensation. d'accord léegi loolu compensation yi la mais bu ñu ñëwaatee un peu ci impact yi yan impact la suppression yooyu di def ci usa ci euh, ouvrier yi. moom laa lay expliquer sànq ñun def nee naa la lignes yi lignes yi nga xamante ne dañ leen supprimer pratiquement ay lignes déficitaires la ñun léegi. il faut nag léegi maintenant ñu des solution alternatives parce que xam nga boo supprimer ligne tey dama joxe exemple boo supprimer benn ligne ligne boobu ay bus ñoo faroon daw ak personnel. Mhm. mais dañ koy déployer feneen. ok d'accord. tu comprends loolu nag liggéeyu ñun ñëpp la ñoo si war a jàpp tey def ay propositions alternatives ba nga xamante ne ligne ñuy supprimer parce que ligne boo ko supprimer day am bus maanaam je donne un un exemple par exemple bu ñu dañu supprimer la ligne 6 ligne 6 10 10 car moo faroon daw. ak pratiquement trente équipages. Mm-hmm. n'est-ce pas bu ñu équipage mooy conducteur ak receveur bi. Mm-hmm. ñoo ñoom ñoo fa doon daw par exemple xam nga dix cars yooyu tey ñu supprimer nañ lii six bi mais dix cars des na personne bi des na. Mm-hmm. mën nañ ko jël ñu dawal ko fereen te ñu suñu xalaat tey mooy tey xaalis fu mu ëppee tey mooy si ligne mooy banlieue bi mooy banlieue bi maanaam interbanlieue bi foofu la xaalis bu ëppee pour ñaari mbir. fa la fa la client yi ëppee. te amul embouteillage parce que lii ligne ligne lu mu baax baax bu bëree embouteillage rek day pratiquement day perte. dinañ ci ñëwaat. voilà alors rek yi. alors euh, comme euh, il tout à dañoo remarqué depuis BRT bi ñëw on voit que yenn ligne euh, Dakar Dem Dikk yi en fait dañoo supprimer seeni euh, seeni liñ i comme il l'a si bien dit mais euh, lan moo waral xamoon ngeen ko auparavant bàyyi ba léegi di ci coow comme ni ngeen ci coowee actuellement. xam nga tamit luy ay di jàmbat comme léegi commencé na daw nag foofu ñu génn ut ay solution alternative je pense que boobu ba tey ñu ngi siy liggéey ah peut-être nag cool yi mooy soog jot léegi ñu wax si moo tax mais aussi foofu ñu gën a leeral nit ñi parce que nit ñi dañoo jàpp ne bu ñu supprimer ligne yooyu comme ni nga ko waxee sànq mën na remettre en cause suñuy emploi mun mm-hmm. na indi ay yeneen affaire yu mel mais tamit xam nga dañ tollu jamono joo xam ne tey dañu war a dem vers des solutions n'est-ce pas dañu war a sànq te yi ñaar la d'abord état ba mu wàññi suñu compensation boo ko defee du am benn impact sur suñuy salaire benn bi aussi mooy lii ñi nga xam ne dañu ko wàññi ñu jël leen redéployer leen feneen parce que surtout aussi mooy réguler le transport mhm. nee naa mooy réguler transport BRT bi mooy réguler transport pour Dakar dañ dikk bi n'est-ce pas mooy réguler aussi les transports aftu mhm. mais ñun tey fu ñuy gagner mooy d'abord ñu bañ jël suñu compa pare jox ñu beneen parce que rabattement yi c'est des lignes c'est de nouvelles lignes yu créé dañuy toll dem si rabattement yi je pense que lépp expliqué naa lu mooy rabattement. Mhm. te lu moo si ëpp solo tey.